ngeen jëf ci ànd bi ak mi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tay ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi tey nag démb ak tay bu spécial la ndax dama am fii euh, groupe euh, boo xam ni euh, xam naa ni traversé na ay génération yu bëri le mythique groupe Baobab Orchestra xam ngeen ni fan yi nu weesu ñàkk nañu kenn si ñoom ku mag ku amoon lu mu représenté si groupe bi muy Rudy Gomis avant moom aussi ñeneen dem na ñu leen kay jaale di ko jaale Sénégal yëpp di ko jaale Afrique yëpp parce que euh, yaakaar naa ne génn àdduna Rudy Gomis moom euh, àdduna yëpp ñoo ko yëg te ni si ñëpp waxee aussi euh, firndeel na li mu représenté woon ak li orchestre bapp continuer di représenté ma am mbégte nag tey dalal fii ñett ci ñoom Yaxya Fall guitariste ak Muntaga Kouaté di batteur également Badou Bey gunge leen di seen manager moom itam nekk ak ñoom si biir orchestre Baobab alors ñu commencé ki nekk <laughs> sama sama sama en face euh, monsieur Mountaga Kouaté euh, yow euh, nga nekk ci orchestre Baobab tey ñu war a waxtaanee euh, groupe bi war a waxtaanee seen jaar-jaar war a itam waxtaanee ak delloo njukkal ñi nekkoon ak yéen te yàlla moom leen ñu leen fi ñaanal yéen ñu leen di ñaanal yéen ñu fi des ngeen yàgg fi lool te te wér ba jox lenge yi ñeneen euh, teewul itam yàlla bàyyi leen fi ñu ngi lay dalal jàmm ci réew mi FM bismillah. salaamaaleykum soxna si ñu ngi lay ziar di kontaan si sa invitation bi ñu defal nii. parce que yéen ñun artistes yi lu ñu mun munti def rek yéen a ko war a feeñal daal waaw te ñun ñoo war di véhiculer ñun milieu bi ñu nekk di ci wax waaw man nag ci orchestre Baobab laa bokk bon c'est ko que Thierno Kouaté ñëwul mm. maa moom ñoo bokk ndey ak baay mm. il n'est pas venu mais man ak Yaxya defe naa mm. war nañ fi mën a teewe waxal ak wax pour orchestre booba mhm. ñu ngi commencé nag di nuyu auditeurs yëpp mhm. ñu am di jàmm yi suñu xarit yi waa di nuyu tous les fans du Baobab mhm. parce que bàyyiwuñu benn yoon bu ñu bu ñu wootee ñu ñëw et puis wax dëgg yàlla daal vraiment gis nañu ñoom seen loxo ci orchestre bi waaw ni ma doon commencé daal mooy wane ne ñun ñu ngi fii question boo ñu munti laaj rek concernant l'orchestre du Baobab mhm. bu soobee yàlla dinañ la ko wax daal. incha allah alors euh, monsieur Fall Yaxya yow tamit euh, nga nekk ci orchestre Baobab euh, ngeen tey symboliser li nga xam ne moom mooy groupe bi ñu ngi lay nuyu am mbégte aussi dalal la ci Rewmi FM. waaw comme ni ko suma naataango Mountaga Kouyaté waxee rek noonu loolu laay yaakaar naa ne amul deneen du ma mën a teg ci li mu wax. ndaxte li mu wax yëpp rafet na benn yoon jeex na euh, li may teg nag li may wax man particulièrement maa ngi ko jëmee ci suñu auditeurs yi auditeurs yi ñuy déglu yaakaar ne am na ci ñi nga xam ne am nañu firnde ne xam nañu dara ci baobab am na ñi nga xam ne xamuñu ci lu bari tey jii dañ leen bëgg a leeral li li suqali baobab ci boppam li ko téye boobu ak léegi euh, ñu am ci yaakaar ne comme ni ko Mountaga waxee ña nga xam ne ñoom lañ daan àndal démb di ànd ak ñoom tey ñi dina ànd ak ñoom ëllëg yàlla nag mooy dogal lii moom dogalub yàlla la kenn mënu ci dara ndaxte boo seetloo dëj euh, euh, réew mii génn nii ci fan yi rek du moom moo fi jëkk euh, wàcc liggéey am na ñu bari ñu ko ci jiitu ñi nga xam ne ñu ngi woon fii ci orchestre bi yàlla dogal na ñoom wàcc nañ liggéey waaye loolu terewul baaw ba incha allah ci kàttanu yàlla dina continuer ndaxte ay mag ñi ngi fi. ay jël nañu ay xale yi nga xam ne balaa ñoo ñu di génn sax àdduna. ñooñu ñëwoon xale yooyu ñëw noonu taxaw ñu am ci ñoom yaakaar moo tax lii fi euh, lii euh, firndeel ne baobab day gudd fan. moom mooy. préparé ngeen préparé naa ñu relève bi ba nga xam ne incha allah lañ daan def parce que baobab du groupe rek. Mm-hmm. buñ ko jàppee ne groupe la baobab dafa nekk esprit. esprit la bi nga xam ne kenn rek sax bu desoon ci baaw esprit boobu day des ci continuer ci baobab nga xam de tele sorte que xale bu fa ñëw wàllu même bu fekkante mosoo xam dara ci baobab boo dugg duggasee kooku bu la jàppee ñaari fan rek nga nekk baaw baobab. guy la daal guy la. jeex na turam euh, wuyu na ko alors ñu nekk aussi ak seen manager euh, Badou Bey ñu ngi lay nuyu sëriñ bi am mbégte lool dalal la gërëm la aussi ci coordination ndaje euh, bi. jërëjëf jërëjëf euh, ñu ngi nuyu auditeurs yëpp di remercier waa Réwmi FM euh, ci invitation bi ngeen si par rapport à la disparition de du grand Rudy Gomis mais je pense que vous êtes euh, bien entouré entre Yahya Fall ak grand Mountaga Kouaté vraiment je pense que émission bi moom loo si bëgg am rek loo si bëgg dégg ak ñoom daa ko si am. dinañu ñëwaat ci yow parce que côté marketing bi ak euh, prestation yi tamit loolu moom yow yaa si wax incha allah mais ñu dugg d' abord si ba Baobab ak tay bi soog di ñëw si si si yow ak euh, li ngay gérer alors ma ma wëlbatiku si yow euh, Mountaga Kouaté ngay batteur si orchestra Baobab alors orchestra bi kañ ngeen ko taxawal Baobab ci Sénégal. man pour commencer damay sant yàlla parce que booba ba muy nekk man boobu commencé gu ma di jouer di jouer musique sama grand frère Issa ko période yooyu moom moo doon chef d'orchestre bu daan jouer ji dafa may jël yóbbu ma bu ñu demee man bien que j'étais jeune dama daan nekk ci ginnaaw orchestre bi dañ fa amoon benn loge quoi loge musicien yi foofu laa daan toog bu ma dégloo quelques morceaux rek nelaw léegi nag ñoom musique bi ñuy tëgg yëpp dafa daan retentir sama nopp xam naa dama ko doon sentir quoi muy ñëw ci man ko waaw temps boobu Issa moo fa nekkoon chef d'orchestre. Mm-hmm. Barthélemy Atisso nekk guitare solo. Mm-hmm. Sidaat li yore basse. Mm-hmm. Euh, Latfi Benzouloun yore accompagnement. Pito Udo yore clarinette. Ndiouga Dieng nekk chanteur. Thione Seck nekk chanteur. Medoune Diallo nekk chanteur Bala Sidibé nekk chanteur. boobu temps Rudy en 70 la orchestre bi commencé. 70 boobu euh, ñu ngi commencé par Bala Rudy Atisso waaw ak Medoune Diallo ak ñoom. 1970 70 la orchestre bi sos. parce que ku ñuy wax Ousmane Diagne ak Adrien Senghor ñoom ñoo créé woon loolu pour gan yi jóge bitim réew les autorités kii ay. Euh, Euh, les invités daal du mhm. du chef de l'État. parce que c'est dix ans après l'indépendance. mu ngi noonu at ginnaaw bi ñu ñu ko doon fréquenté. mu ngi noonu contexte boobu lañ ko taxawale. le président bu amee ay invité bugg a découvrir euh, Sénégal dañ ko daan andi au Baobab. daañu ndeysaan Laye Mboup mu ngi dund. Mm. Laye Mboup moo doon woy aussi euh, les morceaux folklore quoi. bon léegi donc bi ñooñu organiser loolu ñu jëli nag musiciens yooyu dañ leen indi Euh, à la rue Jules Ferry Jules Ferry foofu la bar dancing ba nekkoon léegi mu nekk bar dancing bu rafet bu jekkoon bu amoon classe ay ay kilifa rek fa daan daje quoi. waa yi nekk foofu nag commencé di jouer si la ñu si la ñu si la ñu fente à peu près cinq albums cinq albums yoo xam ne dañ ko génnandoo. kon amoon ngeen inspiration jamono yooyu. ah waaw waaw parce que xam nga ñaata chanteur la ñu woon. Laye Mboup Ndiouga Dieng Medoune Diallo. Euh, Bala Sidibé Ndiouga Dieng mais y avait beaucoup de chanteurs ñoom ñëpp ñu ngi woon nag ay répertoire quoi léegi répertoire boobu yëpp lañu ñu dajale nag def ko cinq albums génnandoo ko nag ci marché bi nag waaw kon boobu yëngal ngeen euh, scène mm-hmm. Mm-hmm. ngeen scène musicale bi ah, ah non période boobu moom wax dëgg yàlla période boobu moom wone nañu suñu bopp daal et puis on était jeune aussi bañ fa nekkee euh, ba jóge ci loolu ah, rue nag moom macha allah moom ci ñi kaw ñi ci membre fondateur yi ñi formé ñi commencé orchestre bi mm. mais moom def fa jóge dem états uni trois mois quatre mois à peu près dafa fa jóge dem États-Unis mm. maa ngi fàtte sax Lutfi Benzalone aussi mu ngi ci yow bi mu demee états uni man en 74 man si laa ñëw nag adhéré man ak Charlie Ndiaye mm. si la ñu ñëw nag adhéré ci orchestre Charlie mooy joué guitare basse mm-hmm. waaw léegi ñun bi ñu ñëwee adhéré nag léegi ñu nekk fa nekk fa nekk fa ba 77 Rudy Gomis jógee Euh, États-Unis ñëw balaa dal daldi ko dugalaat si la Thierno Kouaté aussi temps wu Sahel am benn coupure Thierno jóge Sahel ñëw rejoindre ñu mook Pape jibi Ba waaw léegi ñun en soixante euh, en soixante dix sept ñu jóge fa nag dem Jandeer benn boîte bu ñu daa wax Jandeer bu nekk Soumbédioune defe naa yax yi xam na ci dara parce que ñoom nëmboon ñoom orchestre nëmboon ak ñun ñun ñoo daan animé foofu. Mm-hmm. wax dëgg yàlla mu nekk lu kéemaane. alors euh, sëñ bi Yaxya Fall euh, yow si début yi orchestre Baobab loolu ci mën a wax. non man début bi. Euh, nekkuma fi nekkuma woon ci orchestre Baobab. daanaka comme ni mu ko waxee léegi léegi ci njeexital waxtaanam. fii ñaari orchestre ñoo fi nekkoon yu daan toj Sénégal. muy orchestre Baobab ak Number One. bal bu fi mës a am. ñaari orchestre yooyu. Mm-hmm. lu mës a am ci àdduna à travers le monde entier. ci culture sénégalaise ñaari orchestre yooyu ñooy dem lu ne la ñu defal réew mi bu ñu xamee tey jii culture sénégalaise sur le plan musical yàlla ak bëkk nu ñaari orchestre yooyu daan nag am xam nga rek comme matchu football équipe yi jia fii jaraaf fële mm. mais ñun suñu biir xamante woon nañu mais public bi ak fan yi ku nekk da ngay wax sama orchestre moo mën sama kii bi. nit ñi gëmoon nañu loolu. dafa amoon rivalité. waaw nit ñi dañu gëmoon dafa am rivalité or que amul benn rivalité. Ah. parce que man damay dem je me pel que man xaritu famille yu Muntaga bi ci ñoom Koité Koité yi depuis seen mag jéego. Mhm. moom Thierno. Mhm. Muntaga mhm. famille Koité kër gi dama fa daan dem. di fa lu ne laa daan def. donc mënul woon am benn concurrence mënul woon am benn amu animosité ou bien bokk. concurrence loyale lay doon. yaa ngi dégg. Hmm. loolu moo tax tey jii depuis dix ans presque man maa ngi nekk ak orchestre Baobab parce que ba ñu nee dañu dañu soxla guitariste seen xel ñoom ñoom Koité Koité yi ñoom Moutaga ak ñoom ñëpp Thierno xaal jàpp ñu kenn bu dul nañu dem jël yaax ya nga xam ne au la même suñu relation professionnelle suñu xarit la. Hmm. parce que ci famille bi laa bokk. looloo tax moom ma dugal ci Baobab waaye li ma ci mën en particulier moo di nit dañu war a xam ne dafa am lenn li nga xam ne mooy dellu si doomu aadama mooy culture culture nag en particulier li ci gën a am solo mooy musique foo gis ci àdduna doomu aadama bi nga xam ne dafa am malheur naqar wala yu mel mi ngi réfugié ci ci musique ca jamono yonent bi nag ba tey jii parce que koo mës a gis ku am naqar muy naqar di bànneex ñaar rek mooy tax nga am yaakaar ci am espoir mooy musique bu dee ci diine dañuy woy yaa ngi dégg bu dee ci mbirum àdduna aada àdduna dañuy jouer musique donc ñun de manière générale suñu métier mooy musique baabaab nag wane na ko parce que dëgg la ñi ngi ñafe ay mag lañu waaye on a donné le meilleur de nous sur le plan culturel aujourd'hui tey jii yàlla nag moom mooy wan mooy wane boppam ci lu ne yaa ngi dégg ndaxte dañu ne euh, olof dafa ni dëgg xonqal na bët waaye faq ko am nañu lu tiis lu dal suñu kaw waaye nag lu mu diis diis diis yàlla may nañu xel bi nga xam ne tey jii préparé nañu benn relève bi nga xam ne incha allah ci kàttanu yàlla nit ñi kenn lu ci sentir ne baobab jéng na wala def na lii. kenn du sentir ne baobab jeng na wala am na ñu fi jógee ndax relève bi loolu dinañ ci ñëw mais am na ay jamono baobab quand mel ni ku perdre un peu euh, kii wam euh, dayoom mm-hmm. ak euh, peut-être aura bu mu amoon mm-hmm. ni mel ni daal lu nit ñi fàtte mu mel ni daal baobab bi dafa tàmbalee di di daanu mm-hmm. même si jugaat ngeen en mille alors période bu xaw a sombre boobu lan la woon lan moo ko waraloon période période boobu xam nga Barthélemy Atisso moom à un moment donné aussi moom moom moo remplacé remplacé Issa ci chef d'orchestre waaw léegi Atiso moom dafa doon jàng waaw dafa doon jàng bon euh, capacité en droit la doon def moom d'ailleurs sax il est licencié en droit am na c'est un avocat période moom mu ngi jàng gars yi commencé à se lasser parce que euh, comme ni ma la ko waxee 77 boobu ñun dañ fi jógee dem en France ñu dem en France bi ñu demee def fa benn séjour à peu près sept mois. da ngeen doon def ay prestations. waaw dañu fa jëloon contrat. ñu waroon fa def ay disques. d'ailleurs sax moo indi ñaari disques yu ñu def la Baobab à Paris. Hmm. mu ngi exister ci marché bi quoi. bon alors bi ñu demee en France noonu léegi ñun bi ñu dellusee vraiment on était déçus. Hmm. waaw parce que contrat bi ça n'a pas marché on a été couillonné truandé ñu jëlewuñ fa dara daal. Hmm? loolu lan moo ko waral. li ko waral waraloon mooy dañu am affaire ak ay gars yoo xam ne ils te pas sérieux c'était de de ñaari ñaari kii la ñu woon ñaari producteur quoi kenn ki il produit des disques kenn ki moom il produit des spectacles. mu am nag benn intermédiaire boo xam ne kooku moom moo ñu xam. mu ñëw Sénégal nañu am na am naa benn deal pour yéen léegi yéen foog ma yóbbu leen en France. bi mu ñu ko waxee ñun on n'a on a gëmoo leen ko woon gëmuñu ko woon quoi. Hmm. bon ñu dal di fi jóge dal di dem. alors ba ñu demee waa ji engagement yi mu jëloon yëpp la courtier de engagement yi mu jëloon yëpp mu ñëw le producteur de spectacle ne ko man waxuma la woon lii je t'avais pas dit de t'engager su ci ci ci ci contrat yu mel nii man non sama yoon nekku ci léegi il nous lâche. il nous lâche wu ñu woon quoi il jouait le jeu pour nous. pour nous couillonner ko waxu leen woon lu xew dëgg-dëgg. mën la waxuñu moom daf ñu doon coup. c'est-à-dire waa ji il engagé ñu signé ay contrat waroon dem ay Italie signé euh, montant chaque chaque concert ñaata lañ lay fay ak yooyu yëpp alors bi mu ñëwee kële daal il a joué le jeu ne ko man waxuma la woon nga signé lii da ngeen waroon bàyyi ba mu ñëw se moi le chef ñoom ñoom ñu mel ni ñu xuloo léegi kii kii kii Dick Richard mi nga xam ne moom moo ñu waroon a produire nag ci disque yi kooku moom mu nekk waaju baax ndeysaan kii bàyyi ñu Dick Richard jël ñu en charge. mais dem gi naka la demee xanaa amu leen woon boobu ñu leen entouré ñu leen di gérer seen. non temps boobu. Mm. le l' intermédiaire là. Mm. moo ñëw fekk ñu nañu léegi ñun dañu leen bëgg a yóbbu en France. les productions du benn kii la bu nekk en France boo xam ne mën nañ leen defloo ay spectacle mënuñu ko loolu la mën a. moo gérer seen voyage ak yëpp. mu ngi noonu moo gérer voyage yi. frais euh, tout tout tout ba pare ñu signer contrat mais bi ñu demee que léegi il a joué le jeu bi ñu ñëwee ba wàcce Paris ba wàcce Paris. Mhm. maa ngi fàttaliku mu sedd guy waaye. ñu dal di wàcc hôtel bi. la première fois ngeen dem dem Paris fàtte mukk ah. yéen a ngi doon doog a dem <laughs> ay tour Eiffel ak ay yooyu mu sedd guy. <laughs> la ngeen ne la des écoles du ñu ko fàtte mukk waay saa waay dans le cinquième arrondissement. foofu la ñu daloon benn hôtel bu ñuy wax hôtel Minerve. bi ñu ñëwee nag on était vraiment déçu quoi. Hmm. léegi nag bi ñu jógee foofu ñibbisi nag si lañ demee ngalam benn grand bu ñu daa wax Lune Diop Aline Diop moom moo doon moo ko doon gérer. Mm. mu ne gars yi venez man on va s'organiser on va xam nga léegi Lune ñëw ñuy dem kii et eh, Youssou Ndour ñëw mm. phénomène yu Ndour. mbalax mi dal di commencé dal fekk ñun suñu absence boobu ñu defoon. Hmm. Euh, mbalax mi nag Sénégal ah d'accord y avait un vide. ñii tamit même Number One hmm. ñu ngi woon à Paris ñun ñoo ñun ñoo demandoo woon en France. Ah, Number One dañu ñu jiitoo benn jour defe naa. Hmm. ñoom dañu dem tey ñun le lendemain ñu dem ñu dem fekkee fekkante en France. mbalax maa nii nag ñëw. Youssou Ndour ginnaawu leen. maa la wax loolu teg <laughs> non ginnaawu sax gaa. waaw non façon de parler. dafa teg ndëndam léegi nag ne grand yi bu yeboo ngeen. <laughs> ngeen foofu ku <laughs> fi ñëw ñu rëq seen dégg effectivement bi ñu dellu dellu see vraiment mbalax mi jël ampleur quoi bon ñun ñuy joué mm. y avait des ay kii mais xale yi ñoom ñëpp màbb dem dem ci mbalax waaw dem ci mbalax moo gën a xumba gars yi commencé nag di découragé ñii dem jàng yi ñii dem kii mm. ñii defi lii euh, maa ngi fàttali am na benn soirée boo xam ne man ak Charlie Ndiaye ñoo liggéey si mm. dama ñëw man tëngeej laa daan jóge ñëw euh, ñëw ngalam taxaw Charlie ñëw ñu taxaw fa ba minuit gisuñu benn musicien ma ne ko Saint-Louis ñu ne ah xanaa ñibbi gars yi ñëwuñu noonu lañ jëlaatee suñu yoon boobu nag c'était le déclin quoi c'est sûr que ah boobu les gens mm. bon sonn quoi mm-hmm. bon léegi nag si la orchestre bi en cinq si la orchestre bi disloqué noonu nag looloo andi woon euh, kii coupure boobu léegi mu am coupure nag mm-hmm. jusqu'en 2001 mm-hmm. léegi nag ñun la ñu liggéeyoon yëpp am na ci ay pirates yoo xam ne mu ngi doon circuler partout dans le monde en Grèce aux États-Unis man dem naa États-Unis ay nit andi ay disques yoo xam ne man def ma jaaxal mosuma gis disque yooyu. ñu ñuy kii pour ñu defal leen autographe. te yéen produire loolu dara la ñu deful daara gars yi ndekete dañ daan jël suñu affaire liggéey nañ seen kaw daal waaw dem di ko jaay à l'étranger quoi. Ah waaw c'est ça qui s'est passé nag bon après muy loolu quoi ñu jékki-jékki nag léegi ñun aussi bon. Euh, ku nekk dem de ton côté dem jouer ji un peu partout man je jouais à l' à l'hôtel Thierno à l'hôtel ainsi de suite gars yi ñuy formé balaa daal ndeysaan moom moo desoon jël instrument yi desoon ndem si yàlla si bala sidi ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana moom Issa Sissoko ah, Thione Seck Medoune Diallo mm. ah, Rudy Gomis mm. ñoom ñëpp Laay mm. Mbuub ñoom Ndiouga Dieng ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla suuf sedd seen seen seen kaw parce ñoom macha allah ñoom ñooy ñoom ñoo ñoom ñooy déclic bi quoi. ñoom ñoo génne affaire bi. civilisé woon am doole. am personnalité. set si seen i wax set si seen jëfin man maa ñoom rek. parce que ñoom màggee nañ màggee nañ ma ay quatre ans yooyu. mais man li ma am nii tey ñoom ñoo ko duggal ci man. Rudy Gomis da daan tëgg tumbaa. Rudy da daan woy di tëgg tumbaa. Ndiouga di woy di tëgg tumbaa. Hmm. waaw man may joué batterie di joué tumbaa. gis nga balaa tey ndeysaan yàlla yóbbu na ko man maa jël tembali si di ko joué. donc ñun on est poly dañu polyvalent woon quoi. ba pare nag mu am lu yàlla defoon ci ñun lu ñu yàlla mayoon daal. Mhm. waaw ba pare comme ni ko Yaxya waxee euh, melting pot boobu ñu nekkoon noonu. Mhm. amul benn président comme ni ko Yaxya waxoon xamu noo koy waxee <laughs> nii lu xaw ma waxal <laughs> waaw dama ni nu orchestre Baobab dafa réussir ce qu'aucun président la réussi mm-hmm. aucun président africain mm-hmm. unité africaine moom ñun ñoo ko réussir pourquoi ah. parce que dans ce groupe là il y toutes les nationalités ah oui ah oui oui ah, ay Maroc ak mm-hmm. Sénégal ak Bénin ak fu nekk Mali ñëpp nationalité yëpp boo bëggee gis Afrique ah bu uni ñëwal ci Baobab nga gis ne unité africaine moo nekk noonu. voilà yéen ay union africaine. mais ñun non sax foofu loolu. parce que ñun union africaine dëgg dëgg dëgg. Mhm. mi ngi nii. Mhm. parce que yële dangay ngay gis ay tiraillement fii xëccu fii génn naa dugg naa du ma génn bugguma lii danaa la amaat non yooyu ça n'existe pas au Baobab. Mhm. Baobab yàlla dafa def mu nekk benn guy bu ne déj taxaw lépp di njëriñ. buy bi njariñ la dañ ciy def jus di ko di ko laaxal di ko jus di ko naan mm-hmm. écorce bi dañ koy def mooy xàncum xàncum guy mm-hmm. dañ ciy def ay buum dañ xob yi dañ koy laalo mm-hmm. léeg-léeg sax ñu mbuum ko xam nga man loolu moom xam naa kon nag baobab euh, ñun groupe bi dafa indi tur tur turu guy gi ci boppam te dëgër na aussi yàgg na dafa ne dafay dafa yàgg ñun nag tur bi lu mu yàgg yàgg yàgg guy gi rek day des. Mm-hmm. nit ñi dañuy dem. nii buy buy di daanoo ci kii ba mm-hmm. ñu toj ko. mu am teewul garab gi des. garab des am na yaa ngi de 70 à nos jours. Mm-hmm. en 1970. génération boobu tey ñoom ñëpp dem. waaw mm. ndeysaan ñoom ñëpp a dem. yéen a yéen a leen remplacé. waaw waaw ñun presque ñun ñoo toppoon seen ginnaaw ko après léegi y a nos enfants qui sont là. Mm. yaa Alpha Dieng. Mhm. mi nga xam ne doom la ci Ndiouga Dieng. d'accord mi ngi ak yéen. Papino Kouaté doom la ci man. d'accord waaw ak yeneen xale yoo xam ne ñu ngi. ci biir ñoom dañuy way. Euh, waaw waaw day woy Papino day woy. Papino Alpha. Mhm. lii papaam daan woy yëpp. ak li laay mbuub daan woy yëpp. jël na ko. Mm. Papino. Mhm. li da daan woy. te nag yàlla daf ko baaxee benn yëf. Mm. parce que moom. dafa dafa fekk papaam Rudy Gomis mi ngi dund mu mu mu uuf ko ak Bala Sidibé ñu uuf dañu uuf xale yooyu ba nga xam ne mm-hmm. tey jii ñun jooyatuñu ñun ñooñu sur le plan culturel jooyatuñu parce que ñoom bu ñëwee rek dañuy day mel ni ñoom la ñoom ñoo fi nekk exactement lañu nan nañ noonu lañu leen daan def loolu mm-hmm. eh wéyal ma nii def ko nii fii nii nga koy defee mm-hmm. ñoom bi ñu laata jóg dafa mel ni dañu yëgoon ne xaaral balaa maa dem ma jox sama oli bi ma dex ko ko mhm. monsieur Beye maa ngi ñëw si yow léegi monsieur Kouaté naka ngeen def ba euh, seen doom ngeen intégré leen si si li ngeen di def yéen ngeen euh, waaw euh, parce que Pape il est plein il est émotionnel oh là oh, oh, oh, waaw waaw nga dëgg parce que su ngeen jooyee man miy def émission bi naka laay def donc euh, waaw waaw donc euh, y a l'émotion dans l'air monsieur Beye waaw naka ngeen def ba xale yi ba xale yi waaw li dana Yaxya wax uh-huh. parce que sans faire exprès xale yi ñëw na nu mag yi di leen tette te xamaguñu woon ni sax lii yëpp dina am Papino fekke na Alpha Dia fekke na Ndiouga Dia fekke na Balla Sidibé fekke na euh, nu mu tuddati Rudy Gomis uh-huh. Papino bi soogee ñëw fekkee na Balla Sidibé woy na ak Balla Sidibé woy na ak Rudy Gomis woy nag ak eh, ak Ndiouga Dieng mm. te Papino na la demee moom dafa daan ànd ak papaam ndeysaan di ko jàppal tumbaay saa yu ñuy joué ñu ngi toog maak moom si loge yi mm, musique son bu baax ba joué mi ngi koy fredonné wala mi ngi koy woy si si ak koy woyantu daal fi mu te moom rappeur la au départ ah. c'est un jeune rappeur au départ il rappe mais woy yooyu yëpp nan la demee benn jour ñu am concert mu am benn retard Alpha xaw ma moo retardé. Mm-hmm. maa ngi fàttaliku ba comme démb ndeysaan grand Thierno ni ko Papino alors tu es capable naan ko waaw waaw waaw waaw mun ko est tu mais mu yéeg ci scène bi mu mel nii il a toujours fait ça. Ah. sa première fois qu'il est monté sur scène noonu la noonu la demee. man maay xaritu xale yi. Mm-hmm. moom ñoom moom mii mu doon nga xam ne bu baax li may wax. Mm-hmm. doom yeeg ñëpp xale yu ndaw damay waxtaan ak ñoom kuy waxtaan ak comme kuy waxtaan ak seen morom. parce que je me que bokk nañ dañu bokk liggéey. liggéey bi ça n'a rien à ak autorité parentale. Hmm. autorité parentale c' est autre chose kooku ci kër ga la mën ko ko exercer en dehors même du travail. mais boo la xasee ba nekk sur scène. Hmm. sa sa nawle la. donc loolu lañ leen di wan. Hmm. dañ leen di wan ne ñun suñu ay nawle la ñu bu dee xeex sax mën nañu xeex ci kaw seen bi ci biir liggéey bi. <laughs> ok yaa mais. wan nañ ñu ne au delà même de liggéey bi ñu bokk ñu nekk nawle respect bu absolu dañ ñu respecter que et je crois que très sincèrement ils vont aller très très loin. xam naa ci kenn ki nga xam ne sànq ba léegi ñuy wax daal mais dañ koy xaw a kii tuuti. yaram bi xaw a sutante rek muy Charles Ndiaye ñëpp xam nañ kuy Charles Ndiaye mm. mooy mooy mooy bassistu titulaire bu baax a baax. d'accord fan si dañ ko gëj gis. waaw fan si dañ ko gëj gis mais léeg-léeg mu ñëw xam nga yëngatu tuuti kii parce que ñun au ba boo ñëwee yaa ngi ci biir orchestre boo ñëwul yaa ngi ci biir parce que c'est une famille kër la bi nga xam ne ñëpp ñëw ku nekk am nga fa sa néeg. Hmm. bâtiment bi ku nekk am nga fa sa néeg. boo boo ñëwee ubbi sa néeg ñëw bokk ak nit ñi kii xay na boo toogee sa néeg tamit yaa ngi ci biir kër gi rek. Hmm. loolu daal mooy suñu esprit. bi nga xam ne moo nekk ci au sein du Baobab. d'accord xam nga xale yi. xale yi dañu gis ñun ñuy yàgg ànd. Mhm. Yaxya mi bàyyile na ma doomam. Mhm. bàyyile Cerno doomam. xew bu ñu am mu ñëw ñun xew bu mu am ñun ñu dem. Mhm. donc xale yi loolu ñuy gis noonu dafay bokk ci lii leen di gën a yëkkati. Rudy moom moo moo mook Charlie ils sont les plus âgés actuellement. mais Rudy dafa daan foo xale yi ñu mel ni ay morom dóor daaxee fii sabote fii ree donc ambiance boobu am ci ñun loolu dafay loo xam ne lu baax la quoi day tax xale yi gën a tegu ci yoon bi quoi te am nañu yaakaar comme ni ko Yaxya waxee ci ñoom parce que xale yi ñoom dañu am seen façon de faire mais fekk nañ li mag ñi def ñun li ñu def ba pare ñoom fekk nañ ko fi ñoom bëgg nañ ko mais ñoom aussi dafa am moderne dafa am lu moderne loo xam ne ñoom moom la ñu yore léegi ñoom lañ moom la ñu ñëw nag ajouté ko ñun ci su ñun li ñun li ñu daan def ko mm. waaw comme par exemple so ni mu daan joué guitare mm-hmm. Dadi ñëw na mais daf ko gën a moderniser mm-hmm. waaw daf ko dafa gën a moderne ko xale yi ñoo gën a bëri accessoire tey ah, ah, accessoire justement ak accessoire ñoom seen i accessoire mm-hmm. mu ngi mu ngi noonu quoi xam nga te aussi ni ñu réformé waat affaire bi Charlie comme ni ko kii waxe am na euh, euh, suñu benn doom bu ñu wax Malick moo ñëw euh, secondé Charlie mm-hmm. mais Malick at lépp la am ci nit ku baax xale xale bu am yar bu am teggin la bu am islam la mm-hmm. kii kii nu mu tuddati Alpha mm-hmm. foo ko fekk mu ngi kurus foo ko fekk lu baax yiw dafa yiw parce que moom dafa yàgg ànd ak ñun dafa ànd ak yàgg ànd ak ay mag xam nga comme ni ma ko waxee papino moom moom bañ na bu tudde boppam papino ñaasibiya c'est-à-dire moom ñaseen la quoi moom ah. waaw hmm. donc am na suñu benn frère tamit boo xam ne Moussa Sissoko hmm. moom Paris la nekkoon joué ak ñoom Mori Kanté Touré Kunda Papa Wemba ñoo ñëpp mais moom aussi daf ñu rejoindre Moussa ñun suñu ñaar yaa ñoo bokk ndey ak baay mook Issa ñoo bokk ndey ak baay saa Sissoko bi gaañu quoi hmm. donc ñoom ñi gaañu ñëpp tamit au passage ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla xare leen àjjana yal na leen yàlla yërëm mm. yàlla suuf yàlla leen suuf sedde daal. amiin amiin ñu leen di ñaanal. Ah, alors justement ñu wax ci ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci yéen tey. te mm. jóge fii. Mm. Euh, macha allah xaw na ñu takk lool lu toll noonu bu jógee ci groupe. Euh, faaw dafay feeñ da ngeen koy yëg mais certainement y a beaucoup de souvenirs yoo xam ne garde ngeen ko si ku mel ni Ndiouga Dieng si ku mel ni Laye Mbuub Thione Ballago Seck lan ngeen jàpp ci seen naataango yooyu nga xam ne jiitu nañu. xam nga ñoom li ñu mën a jàpp rek mooy ñoom li ñu wone te li ñu wone le bon exemple lañu ñu wone xam nga Ndiouga Dieng ku dégg ay woyam da nga ci jëriñu maa ngi dégg sànq yax di wax naan euh, bu musique bi boo toogee sa xol dina neex mm. mais ki nar dem vers la pente mun nañ leen rectifier delloo siwaat la waaw boo naree def yëf yi kii kii woy mun na la delloo siwaat mm-hmm. coon bu ne kii dox ci tali bi mm. moytul ma tali bi mm. oto malaaka la xam nga mm. yooyu yëpp yaddaa yaddaake eh, la boo xam ne mu ngi mu ngi éduquer la euh, population yi donc ñoom li ñu andi loolu dafa bokk ci patrimoine bi nga xam ne ñun dañ ko xale yi dañ ko war a téye waaw donc euh, ku mel ni ku mel ni Thione Seck ñëpp dégg nañu ay woyam Medoune Diallo ñëpp dégg nañu ay woyam woy na fi ay Fouta Tooro woy fi or euh, présentation orchestre Baobab Sibam ay woy yu yàgg yoo xam ne yooyu maam ñoo ko daan woy maa ngi dégg Viviane sax reprendre ko mhm. loolu maam yee daan woy te loolu histoire bu yàgg la bu yàgg xam nga laay mbub laay mbub bàyyi na fi loo xam ne dootul fayeti mhm. dégg ñoom nag ñoom dafa am benn patrimoine bu ñu fi bàyyi mhm. Njaga fi bàyyi patrimoine ñoom Doudou Ndiaye Rose ci kaw tëgg dañ ko fi bàyyi. Mhm. donc ñooñu ñëpp ay kilifa lañu yoonu xam ne xale yi dañu war a roy ci ñoom. Mhm. ñoom nag loolu mooy loolu mooy loolu mooy seen valeur daal. Mhm. waaw mu ngi noonu. ku mel ni Rudy Gomis euh, moom moo fi mujjee jóge euh, gis nañu tey àddina yépp ni ñu bokkee di wax ci génnuk àddunaam wane ne aussi ñëpp yëg nañu ko mm. euh, Rudy lan la ñu mun a jàpp si si moom particulièrement li ñu mun a jàpp ci moom Rudy déjà intellectuel loon mm. corps de la paix daan liggéeyee il enseignait le wolof aux Américains waaw lu yàgg nag diir bu yàgg. Mm-hmm. waaw bi loolu weesoo ay woyam tamit ku ko dégg woyam yëpp dafa significa significatif. lu mel ni Tante mm-hmm. benn maire boo xam ne mbokkam la daan traîner ci mbedd yi ndeysaan mu gis image boobu génne ko won ko ne sama mbokk la waaw dama ko war a fat dafa war a ñëw ci man. Mm-hmm. ay yenn saay yooyu yëpp ay woyam yu mu woy la. Rudy il était dafa daan jouer congas léeg-léeg man bu ma demee ci batterie bi di jouer moom day dem jouer congas bu léegi moom buy woy Ndiouga Dieng aussi da bàyyi micro bi ñëw ñëw ci congas yi donc ñun on était polyvalent quoi waaw Rudy nag moom nañ ko ñaanal yal na ko suñu borom bi yërëm waaw parce que cette nouvelle génération am na lu mu leen apporter parce que ñoom fekkee nañu xëy na peut-être ñoom euh, daluñu ci ñenn ñi hmm. mais dal nañu ci Rudy am na man dama daan gis souvent muy togg ak Papino naa ko defal nii nii nga war a def nii la woy nii la ñuy woyee nii la awoo Alpha maa ngi dégg keroog mu koy wax donc Rudy monument la monument la bu nga xam ne te léegi loolu mu def nii dootul feyet yi ba jamais bon musicien daal bu bu bu bu bu complet la woon nit ku baax la woon bëgg boppam bëgg solu foo ko fekk ay chapeau ñun foo ko fekk chapeau bon donc dëkk bu ñu dem wër nañu àddina bi wër nañu àddina bi dem nañ Brésil dem. trois waaw oui plus plus sax parce que chaque fois boo demee rek da ngay def tournée. Mhm. tey bon yaa ngi Allemagne suba yaa ngi Suisse ginnaaw suba yaa ngi Italie ginnaawaati suba yaa ngi Hollande ginnaawaati suba yaa ngi. Euh, Slovénie. Slovénie Hongrie ah xam nga euh, am na benn jour boo nga xam ne sax ndeysaan yàlla daf ñu may prix Nobel de la paix. Ah ñu def première partie. artiste boobu nag dama ko fàtte quoi mais ñun ñoo def première partie bi te xam nga mm-hmm. prix Nobel de la paix àddina wërngal bëgg ñu nga fa mm-hmm. toog mm-hmm. ñun ñu def première partie ñëpp déglu ñu te xam nga boo fa wooyee bul ma miin moom day nekk àddina bu bu tas ay ay ay ay sutukum ñun yooyu ñun looloo doon suñu cest à ñun yàlla dafa am lu ñu may daal loolu mu ñu may melting pot boobu ñu nekkoon kii jógee Mali kii jógee Guinée kii jógee Togo kii jóge kii ba Barthélemy il est togolais bon léegi loolu yëpp ñu boole woon nag di ko teg waaw ba pare nag boole lépp di ko di ko joué loolu nag moo doon suñu suñu identité waaw particularité uh-huh. waaw moo doon suñu particularité donc tey ji loolu moo ñu andi ba fii tey uh-huh. moo tax ba ñu yegg si fii uh-huh. Rudy nag nañ ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te ñu ngi koy jaale njabootam aussi di ko jaale tous les artistes waaw parce que bien que mu ngi woon Baobab mais joué na ak d'autres musiciens yu fi nekkoon waaw am nañ yeneen musiciens yoo xam ne dafa daan ñefe dafa daan kenn teg ñoom daan na jëflanteeg ñoom. waaw donc ni euh, ñu ko ñaan rek yàlla xare ko àjjana. gars yi ngi wax naan euh, ndeysaan l'enterrement se fera le 5 mai. Mm. à Ziguinchor. waaw ñun ñu ngi ut ay pexe daal pour dem teew fa quoi. Mm. parce que ñun ñoo fa nekk. alors yéen ñi fiy des aussi macha allah euh, certainement ñàkkul ñu mel ni man di wax mais euh, ñi naka la ñuy def ba tenir màggetu leen ah ay jeunes ngeen ba léegi <laughs> vous avez l'air mais comment vous faites lan mooy seen secret ba tax tey ngeen continuer 1970 ba léegi ngeen di gérer dafa am li nga xam ne yàlla moo ko teg seen ci kaw loxoom ci ci ñoom ñoom ñëpp du ñu naan sàngara du ñu tox cigarette du ñu tox yàmba du ñu def dara li nga xam ne rek day nuire ci seen santé. d'accord ba pare dañuy góorgóorlu ci ca ca suñu kàttan ci do jaamu yàlla. pourtant ku wax musique yii nga fi lim nii lay xalaat. waaw waaw mais kooku dafa am génération bi nga xam ne ñoom ñoo ko moomoon. mais ñun on est responsable ay responsable ku nekk da am ku nekk yaa ngi sa kër. sa soxna say doom. bëggoo ëllëg si biir ñuy xas sa doom ne sa bàyyi nangam bi sa sa do sa kii déedéet. ku ci nekk da ngay boo demee kër kër Muntaga bi da nga koy fekk mu nga toog soxnaam a ngi fi doomam yaa ngi fi macha allah ñëpp nekk ci jub waxtu julli jub bu jotee dañuy julli waxtu nelaw tëddee ñu nelaw bu waxtu kaf jotee mu kaf ak ay doomam ak soxnaam. mooy bien que nag nee naa ko nag. toujours ma tooñ ko ne ko Muntaga na nga may tuwa ah? <laughs> mu ne lu tax laal man ma ne ko ñetti tàccu jigéen xajul ci góor <laughs> bu ko defee mu ne ma waaye ban la ma ne ko. bëgg xool gauche xool droite bu la sa jabar ne nii nang nang ma ne bu boobaa da ngay da ngay da ngay ñàkk sa sago. ba ba da koy tooñ rek. Uh-huh. xam nga ñun ci biir loolu dañuy uh-huh. tooñante dañuy uh-huh. kaf. li nga wax nii yombul parce que des fois boo nekkee si milieu showbiz bi mm. euh, toujours lu nekk daf lay wutal si. Euh, man ci yàlla. ne sàngara mosuma ko naan. daan naa tox cigarette waaye bàyyi naa ko mosuma tox yàmba. daal xam. nga ñun am habitude mooy. dañu ñëw yéeg liggéey bu ñu tasee ku nekk dugg sa oto ne fees dem sa kër parce que la ngay witti wala la ngay démb tambaambaalu demal toog soo ko sowetu njaboot bàyyi nga ko sa kër waaw xam nga hygiène de vie mhm. ñun moom la ñu mos di am orchestre Baobab foo leen mos di fekk sur sur sur le plan vestimentaire mhm. ñun foo ñu fekk ay costume lañu daan sol costume costume chemise cravate sol ay chaussures fermées ciré bu mu rafet mhm. waaw ku dóor sa torpedo nga dóor ku am sa karaw gu rafet nga pañe ba mu rafet. Hmm. xam nga déjà loolu li ngay wone euh, da ngeen di mu ngi noonu. Hmm. am na suma benn euh, suma benn booyu musicien. Hmm. nee na ma yéen yéen yéenu ñu ubbil yoon wi ci côté côté baax ci côté set ci côté yiw kooku moom loolu moom daf nee na daf ko jël ci ñun te loolu ñun looloo mos di nekk donc am nañu hygiène de vie ñu ngeeg suñu ay soxna ñu ngeeg suñuy doom duggal leen ci kii comme ni koy yax ya waxee doo ñu gis ñuy naan léeg-léeg nga dugg jàkk ci sax nit dal di jékki-jékki tourné ne du yow mhm. man léeg-léeg ma ne la non du man de yow mii la <laughs> xam nga yow la yow laay gis tele ngay xattaraayi foofu nga xam la donc dañuy dem jàkk ji comme tout le monde bu koor bu koor jotee hmm. bu koor jotee dañuy woor ah, comme tout le monde ah. bon yiwul waaw donc hygiène de vie bi daal ak suñu xarañ moo tax ba ñuy yegg si fii tey fi ñu yegg si nii suñu hygiène de vie moo ñu ko jox ak suñu xarañ et xam suñu bopp parce que man am na période boo xam ne man tous mes amis ñii ay directeur d'école lañ ñii ay professeur lañu ñii ay lii ay lii ay lii mm. mais man sama bopp man taga dama ne waaw mais mais man musique laa opté mais pourquoi pas du ma jéem a essayer améliorer sama bopp xam man maay kan. alors euh, yegg si fii tey euh, yoon wu gudd la woon. Mhm. certainement amoon na ay jafe-jafe. Mhm. yan ngeen jot a jànkonteel yoo xam ni marqué na leen vraiment ci ay tolof-tolof ci yoon wi. en fait ñun daal li ñu war a mën a marqué. Mhm. mooy le fait que ñu toog du ñu seetaan ko ñun lépp lu ñu am ñun ñoo ko ñun ñoo ko may suñu bopp lépp lu ñu am rek ñun ñoo ko may suñu bopp. parce que comme ni ma la waxee sànq yaa ngi may laaj ndax amoon ngeen manager temps yooyu manager xewul dañuy am benn chef d'orchestre nit mooy dégg fële baobab ñëw dal di signé ak contrat ñu dal di signé bu ñu paree ñu jox ñu suñu xaalis ay compte bancaire sax amuloon dañuy ñëw on se le partage ku nekk dem euh, le plus clairement possible le plus xam nga correctement possible waaw donc tey jii Euh, <laughs> waaw waaw affaire yi dafa changé alors euh, mais ñàkkul aussi des difficultés peut-être ay moments yu metti woon. Mm-hmm. yoo xam ni xam nga nag amul àdduna. ku fi nekk te doo am jafe-jafe rek booy boo nga pare ku fi nekk it dëkk ci jafe-jafe ak bànneex euh, wala bànneex booy boo nga pare parce que yàlla joxewul ñaar yëpp. joxe joxeegul ñaar yëpp kenn. Mm-hmm. wala boo su ko joxee de c'est rare ñu koy jox. mais doomu aadama buy dund. di nga jaar ci tolof tolof di nga jaar ci bànneex di nga jaar ci naqar. waaw importance wax jafe-jafe yi mooy euh, pour que ñeneen ñi. mun ci inspiré wu ñu xam ne que. li Mountaga wax dafa ni lépp lu ñu am ñoo ko may suñu gannaaw yàlla. Mhm. c'est vrai amul benn institution depuis bii Sénégal indépendant bii ñu nekkee ñun orchestre Baobab ba tey jii benn institution muy ci ci suñu état yeeg yooyu. ku ñu mës a jàppale ci ci dara bu ndimbal. kenn rek la pourtant traversé ngeen plusieurs régimes. waaw lu bëri ci Sénégal. mais waxuma la sax Sénégal mosu ministère de la culture. non je préfère ne même pas parler de, de, de du ministère de la culture moi je parlerai d'une chose pour la première fois dans dans l'histoire de ce pays-là et dans notre histoire nous qui nous appartient nous les les. orchestre Baobab Baobab ñu gis benn. je dirais même pas état bi wala gouvernement mais une personne bi nga xam ne elle s'est intéressée absolument totalement à ces vieilles personnes là hmm. ki nga xam ne daf ñu jàppale te yàlla rek muy tax muy première daa bëggul sax ñu koy wax Marième Faye Sall oui ça c'est une parce que ñàkk ko wax gore di la parce ko wax nag mais ñun faw ñu koy wax parce que mën mënuñu jël lu mel noonu di ko denc hmm. à tort ou à de man dam koy wax hmm. ah, parce que mësuñu seetaan ji nga ridi mii gaañu nii ak njuga ma lay gaañu moom moo leen jëloon totalement en charge ci ay hôpital les principal ah lu ne la defal ñooñu ba pare di ñu ko defal ñun ñi nga xam ne xool na ñu xam ne amatuñu doole jooju nga xam ne dañaan ñun nag ay mag lañ mënatuñu amatuñu doole jooju nga xam da ngay taxaw ay minuit ba quatre heures du matin wala ay onze heures ba quatre heures du matin ce n'est pas possible mm-hmm. mm-hmm. prestation yu gàtt ngeen def ay une heure de temps une heure trente deux heures te prestation yi dootul doon bëcc guddi bëccëg rek lay def ay déjeuner ñu ñëw def ko luñ ci am mu yem peut-être suñu dépense wala mu yem ci njëgu njëgu essence hmm. waaye je te je assure que première dame musuñu seetaan ci dara hmm. te rien pour ça rek ñu ngi sant yàlla di ko sant moom surtout hmm. yaa ngi dégg ah. te xam naa ne euh, li ñuy wax derrière tout tout grand homme il y a une euh, Euh, une grande dame mais man damay inversé affaire bi derrière une grande dame y a toujours un grand homme. un grand homme kon président moo jaar foofu en tout cas loolu am na solo euh, aussi ñu ñu gëstu leen parce que bëggal ngeen ay génération yu bëri euh, génération yu yu bees yi tey naka ngeen di def ba peut-être gën leen a ndax yéen ñi ma dégg moom wekkagu leen affaire yi de. Mhm. yéen a ngi si ba tey ah ñun kay mënuñu wekki parce que lii mooy suñu métier. de ah. tout le temps lii la ñu mës di def. lii mooy suñu sutura lii moo tax ñu xam ñu. lii tax ñu mën a yore suñu njaboot moo tax ñu mën a faju lii moo tax ñu mën a ñu mën a dund daal mm-hmm. waaw dund comme tout le monde mm. lii moo tax ñu am notre place au soleil waaw donc léegi ñii foog ñu téye ko mm. fulaal ko faydaal ko nekk ci mm. xam nga ji nga dafa am li nga xam ne nit ki bu koy def te gëm ko mu naan dëkk ci yow da nga ciy seey mm-hmm. Ruud dafa joué ba dee mm-hmm. oui dafa joué ba dee Issa Sissoko dafa joué ba dee bala si bi dafa joué ba dee bala maat moom ñoo ànd doon del dem jëli ji aide au Covid 19 bi ñu président envoyé woon. ñu ñëw y avait beaucoup de monde ñu ne dañuy bàyyi ba le lendemain mu déposé ma man ak Thierno ku nekk sa kër ma joxanteeg moom rendez-vous mu ne ko da ngay jaar suma kër jël si ma suba ci suba si pour suñu paree foofu ñu soog ko dem répétition. mu ne ma waaw ma toog di julli benn voisin bi ñëw woo ma ne ma am na ko leen woo ma jël téléphone bi muy sëtam. mu ne ma sama papa sama maam dee na. Hmm? kon xam nga te jour période boobu ñu ngi répété. waroon hmm. bi ngeen waree xëy ànd. waaw moom moo moo doom sët bi moom moo wone ma sama maam wàcc na liggéey te dafa waroon jël si bu ñu jógee foofu dem dem répété ji. Oh, loolu la kon mooy bàyyiwul woon. dafa la dafa la bëgg a wax rek. waaw bàyyi moom. d'accord arrêté ñun. duñ ko def leen ko xalaatuñu mënuñu ko xalaat. Mm-hmm. parce que dañu bëgg suñu doom yi nga xam ne ñoo ñëw toog foofu. Mm-hmm. ñu toog place bi ñu toog. Mm-hmm. ba fees ko ba mat ko sëkk. mais te pour loolu foog ñu leen foog ñu leen di dimbale. mais sax coloré ñun ñun léegi comme ni ma ko waxee sànq bu fi yemee sax neex. mais coloré bi ñu am par rapport à cette musique là xam nga yàq ya tey bu newoon day bàyyi. ñun duñ ko ci bàyyi. duñ ko ci bàyyi même nit ñi sax duñ ko ci bàyyi dañ ko naan dañ lañ ko yedd ne ñëwaatal parce que ñun fi ñu toll tey ñun ay mag lañ ñu ah ay soixante soixante-dix ko amee ah am na am na ah soixante-dix jëm kaw comprendre nga mm-hmm. donc léegi ñun ay mag lañ léegi ñun mun nañu bàyyi mm-hmm. am na ay gars yu lay côtoyé naan la waa yow yaa ngi ci sound bi ba léegi <laughs> waaw maa ngi ci ba léegi waaw nag doo jéem a kii nga ne ko nga ne ko naa man lii sama sutura fii laa koy amee mm-hmm. maa ngi ci dimbali sama njaboot di ci dimbali doomu aadama yi. lii mm. man mënu ma décrocher léegi. xanaa ba te comme ni mu ko waxee musiciens yi dem ñëpp. dañu ci nekk ba dem. ñoom ñëpp nag noonu la dañu ci nekk ba jusqu'à le dernier souffle. Mm-hmm. xam nit ñi dañ koy caaxaane te du caaxaan. musique ki njëkk suuf insufflé première ki njëkk créé musique mooy yàlla subhaanahu wa taala moom moo ko njëkk a parce que bu ñu ne kun fayakun c'est un suuf mm-hmm. le souffle c'est le vent. quand le bu buy kii da ngay dégg ngelaw li mm-hmm. nga dégg garab yi xob yi di yuuxu yooyu yëpp c'est des kon ku ku ku sàkk lu mel noonu mm-hmm. sàkk ko ci ay caaxaan mm-hmm. donc boo ko jàkk jàppee noonu mën nga ci yegg ci yàlla suñu borom bi te te doo am benn bàkkaar Sidaat lii ci meilleur guitariste yi nekkoon fii ci kii mu nga woon baaw ba oh, bi mu bàyyee ci wird jàng sëriñ bu mag la doon parce que nag dafa am li nga xam ne sa xol bu àndul ak benn kiñaan parce que nag iñaan boo amee iñaan wala xol bu bon doo mën musique ba pare nag li gën a li gën a doy waar musique dafa nekk li nga xam ne du c'est pas à la portée de tout le monde hmm. du ku mu neex danga nekk musicien de musicien ce pas da ngay gis ay multimilliardaires yu nekk fii hmm. nañu dem ne dañuy def musique wala dañuy kii hmm. da gis koo amul dara mën musique bay bëgg a dee. Mhm. mën na bañ a am xaalis sax. waaye boo ko xoolee au fond la mu am moo la ëppale yow. Mhm. ndaxte su maandoo yemale boppam te làmmiñam téye ki te jubal. Mhm. di julli topp suñu borom suñu borom bi fa muy dem yow doo fa mun a yegg mukk ak sa xaalis. ñi gën a intellectuel yi gën a mag ñi gën a intelligent. ñoom ñooy def musique. parce que musique de gars bu ñu ko yaakaaree ay. caaxaan du lu yomb daal du lu oyof du yomb musique. c'est des mathématiques. Mm. ay la parce que quand dans la musique da ngay dégg ay septième augmenté onzième neuvième quinte diminué. Mm. yooyu yëpp c'est des mathématiques. loolu bopp bopp dof nga defee dina ko xam. <laughs> ñu solo yéen a ngi xalaat ay featuring peut-être ak ay jeunes. bu ko defee peut ngeen mun a percer beneen génération bu bees bi ngeen intéressé leen. ñu mun leen découvrir parce que tey sama kalaas gi ak ñeneen Baobab peut dégg lañ ci am. ak xëy na benn way romb ñu ne Ndiouga Dieng wala orchestra Baobab. Mm, mais comme yéen a ngi fi ba tey te da ngeen nekk ci yoonu peut-être jugaat. Mm. lan ngeen di bugg a def pour que génération yi tam ngeen ngeen gën leen a intéressé ñu gën leen xam. xam bi. bon ñun si lañu profité wu liggéey ci lu bëree bare bëri bëri dañu dem benn studio à Mbour dem dugg foofu ànd faak même Rudy sax ah Rudy mi ngay gis nii am na ay morceaux yu bees yu mu composé yoo xam ne ndeysaan daf ko fi bàyyi dem ko waaw mais dañu organiser wu defar ay kii euh, benn maquette boo xam ne pare na ba pare mhm. waaw léegi ñun suñu maison la ñuy xaar rek mhm. ñu joxe le feu vert pour qu'on aille enregistrer kon daal Baobab mi ngi indi lu bees tàq loo xam ne euh, kii lay nekk quoi day nekk entre la jeune génération et. l'ancienne waaw et l'ancienne génération mm. te xam naa ne moom ça va plaire quoi. Mm-hmm. waaw parce que symbiose boobu parce que man xam nan laa ko xamee. Mm-hmm. dama gis temps yi bu ñuy joué xale yi bien que ce n'est plus baobab bu màgget boobu léegi. Mm. mais da ngay gis ne ñii benn espèce su. kii la daal waaw waaw public ak seen ak seen i xalaat. ak seen fougue de jeunesse. Mhm. xam li wax mhm. ak seen inspiration. Mhm. ak seen i talent ak seen seen seen euh, le nouveau matériel la bi xale y yore. ko boole ko ci kii parce que ñun on était simple quoi. tuuti kii mais ak nouvelle technologie yi. waaw waaw justement waaw foofu la waaw kay foofu laay waxee foofu laay waxee. alors bi ngeen amee jafe-jafe euh, bu yàgg boobu ba xëy na ñu bëri déggatuñ leen. 2000 mm. 2001 euh, mm. lan moo nekk déclic bi ba Baobab defaat euh, boum ñëpp commencé waat di leen dégg. ñun daal Youssou Ndour moo dugg suñu caaya parce que dañ demoon dañ en 78 lañ dem en France. Mm. waaw mais ça n'a pas marché parce que après on a eu des déboires des problèmes. après ñu ñibbisi. alors bi ñu ñibbisee nag fekk na xale yi ñoom ñoom nag dal di jël affaire bi quoi. ba benn moment nag euh, Youssou Ndour taseeg benn tubaab. nangale mu ne ko waa mais yow dafa am benn orchestre ma daan dégg Sénégal ma nekkee xale dama leen daan déglu ni ma neexoon orchestre Baobab Youssou ne ko orchestre Baobab mais ñu ngi fi. nit ne ko ah non non non ils sont vivants ils sont tous vivants ils sont tous là ah nit ne leen mais je vous je voudrais bien les les les rencontrer Euh, yusu ne ko mais Thierno Kouaté c'est le frère à Mountaga Kouaté et à Issa Thierno on est ensemble ils jouent au Super Étoile mais je crois que lui il peut il peut donner les renseignements ni la laaj Thierno Thierno ne qu'ils sont tous mu ne ko ah kon bokk il faut que je vienne au Sénégal ñu seet nu ñuy def mm. nit voyager joge foofu ñëw fii bi mu ñëwee Youssou invité euh, convoqué Bala be mm. balaa ñëw mu ne ko mais yéen seen album yi maa ngi ko gis ci àddina monde entier en Grèce aux États-Unis partout muy traîner te dafa mel ni amul ku ko moom balaa ne ko ah gis nga de nous on sait pas ni mu de ni mu accéder foofu sax ñun xamuñu nit ne ko bon léegi je vais essayer d' acheter ça jënd jënd label bi quoi. Mm. mu ko jëndee léegi on va essayer de faire quelque chose. mu dal di jënd affaire yooyu ñu dal di choisir ay morceaux. Mm. def ko tuddee ko pirate choice. Mm. moom moo ko tuddee pirate choice le choix du pirate. ba pay nag mettre ko dans le marché affaire bi jar. am léegi ñu ne ah non on va on va on va ñu jël baobab def ko comme Buena Vista. si la ñu ñëwee nag ñu dal di signer contrat répété après dem ci benn boit bu ñuy wax bari bi Barbican Center benn ngën di salle de spectacle la. ñu war fa def nag benn concert quoi. invité Viviane invité Alioune Mbaye Nder euh, keroog daal c' était le Sénégal en Angleterre. waaw ñu ñëw def ay kii mais ñun bi ñu ñëwee jël ba commencé jouer bu ñu jouer le dernier morceau. public bi jóg di tàccu di tàccu di tàccu di tàccu di tàccu mais on na revenait pas bon ñu ne ñun dellu ñu delluwaat ci seen bi. jouaat ah benn morceau di génn ñu ne ñu non non non non di ah. tàccu. mais vraiment fo loolu andi déclic bi quoi. ñu dal li fa doxee après on a signé le contrat. Mhm. après ñu def benn benn def disque. Made in mhm. loolu tamit am succès bu fou. Mhm. si la ñu commencé nag. ay Brésil ay euh, Hollande ay Hollande. Euh, un peu partout dans on a fait le tour du monde. Okay. à plusieurs reprises nag hmm. ah. waaw dem nañu ba Nouvelle-Zélande pour te dire. Slovénie waaw ay Slovénie ay ay fu nekk daal foofu loo xalaat rek à part Cuba. Hmm. Cuba def naa Yaxya moo fa dem. Bala Sidibé hmm. ñoom ñoo dem Cuba quoi mais sinon a part Cuba. on a fait le tour du monde wër nañu fu ne ci àddina. ba léegi tamit orchestre ñu ngi koy solliciter à l'étranger ak. ba na la. Euh, Covid bi moo ñu yàqal ndeysaan mois mois de février bi normalement on avait une trentaine de dates boo xam ne c' est de février à mars fin mars. Okay. malheureusement dates yooyu léegi dañ ko repoussé waat. Hmm. dañ ko repoussé waat jusqu'au mois de juillet. jëm kaw quoi. waaw mais dates yaa ngi fi ba tey. te da ngeen di dem tourner. a l' étranger waaw à l' étranger oh, yaa ngi Suisse ginnaaw suba yaa ngi eh, fii euh, euh, nu mu un peu partout. Hollande bu subaa yaa ngi Allemagne ginnaaw suba yaa ngi Berlin ginnaawaat suba yaa ngi. même pas le temps mu ngi noonu quoi. Hmm. doo am temps noppalu léeg-léeg sax suñu petit déjeuner. Hmm. ci biir ko bus yi lañ koy jël. <laughs> Ah wala nga daw balaa ngaa tardé avion ak yooyu da ngay sandwich ngay mujj kii. Hmm. parce que affaire bi dafay daal dafa jege ba nga xam ne da da boo dawul. doo dafay seere daal dafay seere. kon daal guy gi mu ngi fi ba tey beneen bi waaw. toujours on est entre deux avions boo nekkee en toujours tu entre deux avions boo jëlul avion yaa ngi jël bus boo jëlul bus yaa ngi jël train bon loolu la ko bon léegi euh, boo joué tey joué waat suba joué waat suba toujours joues trois jours d'affilée nga am deux jours de repos joué waat deux jours noppala ko trois jours ainsi de suite noonu nga koy jàppee mm-hmm. léeg-léeg di am trente dates ci de grandes salles nag ay ngandi salle ay salle ay salle de renommée am na benn salle boo xam ne ñu ñëw fa mujjee joué sax gars yi dañ ko tëj dañ dañ ñu defal leen honneur joué fa mm-hmm. comme ça léegi salle bi ñu fermé ko quoi pour de bon ah waaw donc euh, mu ngi noonu daal da mm-hmm. nga doon laaj par rapport ak euh, la nouvelle génération c'est musique mm-hmm. mais les jeunes là n'ont pas attendu maintenant c'est depuis longtemps ku ci xam ku ci am benn éclat rek dans son esprit da nga xam ne lii bàyyil def nii boo ci duggee rek di nga am dara ma jox la exemple bu lu tax du ci boy rek de Viviane fu mu jëlee fi sibam sibam moo sibam sibam laayoo baaw baa ba ko moom ñoom ñoo mm. ak Carlo Di Carlo Di c'est un gros rappeur mm-hmm. il a flairé que bu ñëwoon tibb ci lii paa yi di defar nii mm-hmm. day jàll mu tibb ci ak gosu rappeur bu kii bi nu mu tuddati Samba Peuzé sama plaisir fii lañu ñu kii woo ñu nee ñu paanal dama bëggoon ñu def dara benn fusion. Hmm. ñu ñëw mu tegal ñu ay kéem ñu defal ko la maison lañ ko dugalal foofu. donc ñi ngi ñi ngi ñoom xale yi seen bopp. Hmm. ku ci ñëw ci ñun ñëw. boo yow ñun duñu dem ci ñoom parce que ñun xam nañu matal nañ ba pare. tegal nañ ne lépp ku ci gis sa sa bopp. Hmm. soo ñëwee ñu se on te sert et puis et puis sax ñun bon dañu envisager woon def suñu cinquante ans. cinquante ans de carrière. Mm. Covid bi moo ñëw dal dali jaxase lépp mais mm. ñun normalement. Mm-hmm. depuis bi Covid juste avant Covid bi ñun dañu dañu dañu waroon def suñu cinquante ans lu balaa waroon fekkee. Mm-hmm. Rudy waroon ko fekkee. Mm-hmm. mais c'est dommage Ndiouga waroon ko fekkee. Mm. Issa waroon na ko fekkee. Issa bi ñuy def projet Issa ngi nekk Ndiouga ngi nekk. balaa ngi nekk rude ngi nekk hmm. wala tey fekke wuñ ko tey ñoom ndeysaan loolu moo neex yàlla loolu waaw hmm. waaye mais ñun dañuy pa pare feete suñu cinquante ans de d' hmm. xam nga cinquante ans tamit lu yàgg la lu yàgg la te am na au moins lu ñu fi bàyyi daal ay traces yoo xam ne c' est reconnu partout dans le monde am na sax ay trophées yoo xam ne am nañ ko bien que kiwul mais am nañ ay trophées yoo xam ne ñu ngi ko jëlee en Europe yoo xam ne c'est c'est c'est international quoi. Mm. xam nga man am na benn jour. ma waxtaan ak ñu suma gars yi ñoom ñëpp. ma ne leen il faut qu'on fasse tout pour rencontrer le président de la République. Mm. parce que il est important aujourd'hui waxuma ministre de la culture le président de la République. Mm-hmm. qui est le protecteur des arts. Mm-hmm. donc notre protecteur à nous. Mm-hmm. parce que dafa am benn événement bu xam ne dafa am sur le plan mondial. te Baobab lañ ko jagalee. 2017 xaw ma 2018 Songline benn journal bi nga xam ne ñoom ñooy classifier groupe yi nekk ci sur la planète euh, ci planète bi yëpp ñu de kii trophée boobu ne Baobab meilleur album 2019 2017 trophée boobu ñun lañ ko jox ma ne woon gars yi dañuy def arrangé wu on demande une audience au chef de l'État pour yóbbul ko album boobu album boobu nag ba pare ñu def ñu def ko tribute to Ndiouga parce que dañ doon rendre hommage à Ndiouga parce que Ndiouga dafa gaañ. waaw dafa daf ci tombé. daf ci tombé léegi nag affaire boobu nag nekk meilleur album du monde du Baobab. Hmm. donc loolu dañ ko bëggoon jël album bi ci boppam hmm. yóbbul ko chef de l'État ak ak euh, posters yi yëpp pour hmm. wane ne lii Baobab orchestre Sénégal ñoom ñoo ko. ñoom ñoo ko ñoom lañ ndamu Sénégal la ndamu Sénégal la lii yëpp dafay prouver ni guy gi moom mi ngi fi ba léegi waxtu wi moo ñu dab certainement li ñu mënoon a wax bëri na si Baobab mais du ñàkk dinañu am beneen occasion incha allah pourquoi pas un direct. un spécial démb ak tey bu ko defee yeneen musiciens yi ñëw ngeen mun a ñamal tuuti auditeurs yi. ñu ñu fàttali ko ah, Baobab xam naa ne yeneen génération yi moom. ñu mag ñi ils sont vraiment nostalgiques ñi leen xam doon leen topp depuis ñu nekk jeune. ñu Euh, Papa Mountaga Koita amoon nañu mbégte en tout cas dalal leen ci émission Demb ak Tay ci Rewmi waaw Fatou. Mm. ñun it tamit ñu ngi lay sant parce que ñun musiciens yi. Mm. ñun yéen a ñuy taal mm. yéen a suñu lumière. ñun ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne mu ngi nii. mais liggéey bi bu buñ ko wanewul du dem fenn. donc yéen yéen a nekk di ñu defal ay promotion di wax ci ñun. di ñu won di di ñu taalal ñu kii leeral ñu suñu yoon quoi. donc ñun dañ leen di sant di leen di gërëm di leen di ñaanal. ngeen gën fi nekkaat encore ñu gën a collaborer waat encore c'est dommage Thierno Kouaté waroon na fi nekk tey hmm. mais xam naa moom laylatul xadar bi moo ko xaw a <laughs> gàllankoor waaye tey bu fi nekkoon mu gën a yaatu mais yéen rek représenté ngeen ñëpp macha allah Alpha Dieng bu fi nekkoon la même chose tamit waaw Alpha suñu doom hmm. ah ak ñeneen ñi si des ñëpp mënoon ñu ñëw fii. mais xam naa ce n'est que partie remise quoi. beneen yoon incha allah daal ñaan ñu ñëw dajewaat fi ñëpp a yaatu. vraiment ñu waxtaan quoi. incha allah alors bii c'était juste euh, une aussi ñi fi jugee ñëpp mais particulièrement Rudy Gomis mi mujjee dem barki ba ñuy ñaan yàlla ñoom ñëpp mu yërëm leen. xare leen àjjana yooyu tam euh, Yaxya Fall ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la nga nekk guitariste ci euh, orchestre Baobab. waaw ah, ñu ngi leen di remercier. dina remercier yow moom particulièrement parce que lii moom bu bu amul woon ñun dinañ ko jéem a wut amal mm-hmm. mais comme yàlla nag dogal na dogal bi ci yoonu jóge jógee mm-hmm. ñu koy sant ñu ngi lay sant it ngeen ñaanal yàlla yàlla su seddal suuf oyofal suuf ci kaw suñu néew yi nga xam ne dañuy dem bàyyi bàyyi ñu fi mm-hmm. te it en particulier ki nga xam ne barki démb rek la fi jóge muy Rudy Gomis bu leen fàtte ñaanal si Sidibé bu leen fàtte ñaanal Ndiouga Dieng bu leen fàtte ñaanal euh, Barthélemy Atisso mm. bu leen fàtte ñaanal euh, Medoune mm. bu leen fàtte ñaanal Issa Sissoko mm. Issa Sissoko Issa Sissoko euh, nag moo doon esprit wu mooy moo doon ni ñu koy waxee te rawaanu orchestre bi <laughs> parce que moom tubaab yi dañ ko bëgg xam nga nit ku nekk dafa am. lu yàlla di def si yow cin cin booy booy togg. am na benn ngelaju bi nga xam ne <laughs> boo ko ci defulee rek. du saf du saf. Issa moo doon moo doon ngelaju boobu nga xam ne bu dee cëmbax ci biir cin li rek. rek lépp neex lépp macha allah ñu leen di gërëm yéen tam bu baax a baax si disponibilité bi surtout euh, gërëm euh, seen manager aussi Badou Bey nga xam ne bon gàllankoor moo tax euh, mënul yeggali ak ñun waxtaan wi mais gërëm nañu ko bu baax a baax moom itam yéen tamit ci disponibilité bi vraiment ñuy ñaan yàlla mu dooli leen a taxawu gën leen fi yàggal dëgëral leen aussi bàyyi leen si kanamu xale yi ba li ngeen bëgg def yépp ngeen motal ko kon mbokki seen émission Demb ak la woon ak orchestra Baobab ñu doon ci dalal Yahya Fall guitariste ak Mountaga Kouaté batteur Euh, àndoon ak seen manager Badou Bey Fatou Thiam Ngom la woon ci kaddu gi ñu gërëm leen gërëm Yaawa Diallo mi ne woon ci jàppandal gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen